askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def faxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilah yi jàmm Sud Quotidien lañ koy xëy daal di doore mu ne dàng fang ci suñu réew mii daal di dekkal nag birum Karim Wade kay la addu daal di jëm mu jëm nag ci li nga xamante ni ñoo ngi koy wéyale ba tey mu doon nag ci avocat wu nguur gi ak groupe de travail yu ONU bi ca Genève waaye nag de ginnaaw tijjiwaat nañu dossier bi xët mu njëkk yéenekaay bi dellu si ci ak ñun direct info moo leen koy may en direct mu ne nag de en live bi la ma ne ko cour suprême bi ginnaaw nag mu fas yéene daal di statuer nag ci li nga xamante ni moo di recours Wade fils bi contre Antoine Félix Diome ñu ne avocat Karim Wade yi de boycotté audience bi la ñuy def niki tey jii. ñu tàggoog moom tabbi ci le quotidien yéenekaay mu addu ci meneenu mbir mu nekk ci loxol yoon mu ne nag fi mu toll nii dañ ko woon nag ca baar ba ki burkinabé bi moo def lu ni mel après nag ni sëmm ci li nga xamante nii nag moo di ma ne ko chaise ba loolee la xëtum yéenekaay bi daal di wane la tribune yéenekaay addug ñun ci leneen lu nga xamante ni nag ñeel nag crash roppalaanuk Sénégal Air mu ne fi mu toll nii nag de gëstu yi mel na ni nag enquête bi mi ngi daal di avancé bu baax waaye nag yamu ca de am na leneen lu nga xamante ni rax na ci mbir mi mu jëm jëm nag ci këruk yoonok réewum France dugal nañu seenu loxo ci mbir mi waaye yamu ca de homicide involontaire bi nekk ci biir laataa ñoo tàggook moom ba tey yéene kaay bi addu ci leneen lu nga xamante ni jëm na ci làngu politique gi mu ni kii di Baba Wane xam ngeen ko directeur cabinet maître Abdoulaye Wade yéene kaay bi di xam ne ni démissionné na jóge na ci Abdoulaye Wade mayel bët yéene kaay bi xool la ko wundu libération yéene kaay da sa ndek ñun waaye addu ci xëtam bu njëkk ci lu nga xamante ni moo ñeel nag parquet bu Paris fi mu toll ni ay sandarmam fi mu toll ni nag dugg nañu ci mbir mi daal di addu nag gëstu ko bu baax ngeen xam nag la nga xamante ni moom la wundu enquête yéenekaay booba la jamono ma ngay àdd ak ñun di ñu xamal nañu nag ak gëstu bu yaatu bu nga xamante ni def na ko nag ci ak kawtef maar di taali yi nga xamante ni ñi nga am ñeel nag xaru yu nga xamante ni nag dinañuy faral di ko gis ci suñu réew mi la wund la sabab mbir mi ak la nekk ca suuf lépp na ma ne ko ay tonton ngi ci Moustapha Ndiaye sociologue xamal na ñu daal mbir mi boo ko xoolee ba xool góom baa nga ca askan wala koy faj jàngatal yéenekaay bi daa ci am lu la leer nañ waaye tamit yéenekaay bi bi ba tey dellu nag di ñu xamal ni ñu nag mbir moomee nga xamante ni ñeel na aéronafu Sénégal Air bi mu ne nag njabootu kii di docteur ya Diop ñoom nag fi mu toll nii ña nga seenub dëj laas yéene di ñu xamal ni ñu beneenub dëj bu nga xamante ni ka ko yóbbee ma ne ko njabootuk ma ne ko frère ba nekk ca cité millionnaire te ñu daat leen di fàtti kan mu ne nag kooku moom moo di kan ñu ni Boubacar Sakho moom nag te defeere nañu ko ni ki démb ca parquet ba coowul enquête bi nag la ko wund ak la nekk ca mbir ma lépp boo ko bëggee xam mayel bët bi di laas ci biiram place yéenekaay bi la mu waxtaane moo di lan El Capo bat boy bat girl code cent cinquante nee na ay gang de moo nekkoon la suñu génération yi ndaw ñi di doxee waaye yemuñu ca de nee na nag dañu bokk ci ay bande nekk nag ay gang kenn ku ci nekk nag fi mu toll nii di woowee sa bopp lu nga xamante ni dama soxor dama am doole te dama am mayel bët yéene bi la nga xamante ni moom la wund ak kàddu yi lan moo ko sabab yemul ci loolu de gëstu nii ma ne ko lii di ma ne ko am toox ñool da leen a yomb loolu mandi tërëf ndaxte cent ma ne ko nga daal di mandi cent nga def tat yéene bi di grand place dañu xamal nañu dee loolee ma ne ko tax na nag ma ne ko faat bakkan yomb loolu trafic cocaïne bi ca Malika teg nañ fa loxo ñaari bisawo guinéen laataa ñoo tàggook yéene bi di grand place mi ngi ñu xamal nañu nag attaque si Lo contre Cheikh mu ne faatu Faye nag fi mu toll nii ma nga naan nag mbir mi nañu ko daal di amalu jéggale ak jëlale ci wàll wi xooli leneen zoom info tabaluñ ci langue politique gi di wax nag beneenu coalition la ñu gis ëllëg Macky Sall fi mu toll nii ma ngay xool nag ma ne ko wëndeelu gën tëggee ak fa muy jaar candidature fi nga xamante ni nag ci biir FPDR front bi ñu ni opposition ku jëkk politique gi ba xam danañu am ku nga xamante ni nag danañ ci daal di déggoo ni kii nag président présidentiable na am déet lum ci mënti doon ti doon le soleil xëy na ne danga faa ngi ci suñu réew mi ànd ak njiitu réew mi son excellence diggante Sénégal Portugal ñu ni faw rek ñu daal di mànkoo àndandoo am nag benn gis-gis ak benn yéene ngir nag gën a daal di dooleel ma ne ko seenub diggante rawatina ci wàllu koom yéene bi daal di addu ci loolu stade yéene kaay ànd ñun di ñu xamal ni ñu nag suñu lions yi fi mu toll nii joxe nañu rendez-vous Algérie le 13 octobre suñu lamb yéene kaay booba la jamono ma nga àddoog Kati Diop coach bi nga xamante ni nag moo yor kii woon roi des arènes di Yékini Yaxya Diop Yékini tenor yi dañoo ragal kii di yékki Yékini yamu ca de Modou Lo am na ay moyens ngir battre nag poids lourd waaye Bombardier fi mu toll nii dana yàgg loolu nag ma ne ko ci li nga xamante ni moo di trône bi yamu ca de nee na Balla am na nag fi mu toll nii dëgg ngir daal di def saison blanche gàddaay gi ma ne ko Balla am na ci yoon Siteu ak Sa Thiès nee na nag vrai derby bi moo nekk nu ni mel. yéene kay bi di suñu làmb yamul ci loolu ànd nag Pape Abdou Fall def affiche yu kii di kan mu ni Boy Niang 2 ak Garga Mbossé waaye ca de Moussa ak Tonnerre yéene ñëpp jàmm. li ñu war a wax a bari rek tey lii di comp as lëf ci yéenekaay yi jaa ngeen jëf